njëkk la ci xanaa ci Sénégal ñu organiser société civile euh, en l'occurrence forum civil ak RADDHO euh, sollicité woon pour ñu mën a def benn open press jàkkaarloog ay couches différentes couches de la société fànn bu ci nekk wala couche socio professionnelle bu ci nekk ñu woo kenn mu ñëw toog bu ma leeral leen bi ñu jotee ci dëkk bi li ñu waxoon ne 2014 foofu la ñu bëgg a yóbbu Mbàkke 2019 bi ma leeralee loolu ba pare wan leen nag li nga xamante ni moom la ñu def 2014 ba 2020 bi loolu it bi nga xamante ni wane nañ ko pare it toog naa it déglu leen ñu posé ay questions ku ci nekk jël nga sa temps posé questions yi nga bëgg a posé man ma répondre leen réponse bi nga xamante mooy li ne ndax ci wàllu organisation lépp luñ ciy def rek bind la dañ koy bind bàyyi fi mu archivé ko leneen lu mu ci manti doon it wane naa ci preuve wane leen ni muy demee ak ni muy doxe lii nag ñun wax dëgg yàlla ñu ngi profité ci occasion bi di sant conseil municipal ak le bureau municipal mais aussi di félicité l'administration communal ci effort yi ñu def pour accompagnement ba mu agsi fii ma agsi tey ci wàllu liggéey bi leneen li ci des it mooy ab commune boo ko géré jiite ay nit te nit ñooñu nga jiitee ñu say nawle lépp loo jëf suba ba ngoon jot buñ ko soxlaa information dañoo war a am information moo tax ñun bu ñuy def réunion de conseil municipal dañuy jël rajo yi ñu def en direct pour askan wi di mën a xam exactement lan moo xew ak lan lañ wax lan moo lan lan fan lañ jëm kon nag ubbeeku googu it dañ koy gën a def ci fànn yëpp di ñaax askan wi ñuy jege mairie bi information buñ dëggee te ñu ñëw luñ soxla ci information it ñëw mairie jox leen kon muy lu rafet loo xamante ni bu ma sañoon it dañ ko yaatal ci senegal ba maire yëpp nga xamante dañoo jiite askan yi kenn ku ci nekk ñëw taxaw waxtaan ak sa askan wax dëkk biñ la dénk ba nga ko jotee 2014 ba léegi loo fa def lan nga fa bëggoon a def ak lan nga fa def askan wi pose la question nga waxtaan ak ñoom parce que maire yi dañu war a jege askan wi waxtaan ak ñoom échanger ak ñoom loolu mooy tax Sénégal euh, réforme yi nga xam ne président de la République teg na ko mu mën ko réussir mais bu écart bi amee rek dara du baax. jàkkaarloog euh, askan wi jàkkaarloo ak euh, société civile exercice la. bu am solo boo xamante ni def nañ ko bëgg it at mun ne ñu koy def bëgg tamit maire yëpp it société civile yi nekk ca seen gox invité leen jàkkaarloo ñu waxtaan ak ñoom askan wi it ñu poser leen ay questions publiquement ñu répondre publiquement avec des preuves lu am solo la ndax boo wax bon gouvernance donc mënuloo tudd bonne gouvernance te tuddloo aussi transparence munoo tudd tamit efficience parce que ni ñu ngi naan efficacité mais l'efficience parce que efficacité mën nga def dara mu gaaw mais à quel prix mais li gën mooy nga def arbitrage chaque dépense nga def arbitrage xool l'opportunité de la dépense à partir de l'opportunité de la dépense nga xool fan moo gën a néew ak fan mën moo ëpp rentabilité kon nag ñuy félicité ñëpp ñu sant ñëpp. dañ ciy remercier tey euh, le maire de Mbacké mu tudd monsieur Abdou Mbacké Ndaw ndax nag nekkul lii nekkul ab obligation de force même bu nekkul ab obligation obligation morale la may nekkul obligation juridique kon bu ko nekkee nangoo rek ci ci coobareem la kon loolu déjà rek c'est un nag fort ñu ko ci sant di ko ñaan. pas bi mu teg mu nekk loo xam ne day wéy ba nga xam ne maire bu fi nekk dana xam ne li ab akile boo xam ne département euh, Mbacké commune Mbacké da am kenn amul droit revenir ci en arrière loolu ñu ngi ko ciy gërëm bu baax di ko ciy sant euh, parce que aussi euh, lim def tey Euh, fort na ci population yi euh, citoyens yi nekkoon ci salle bi tey wane nañ donc seen seen contentement ci li mu def nii loolu rek déjà c'est un acte fort parce que daawul am te moom moo ko ci moom la jaare kon vraiment nous le tirons donc chapeau bas bi damay wax ne macha allah ci parce que tontu boo xam ne lu ci tontu yu gën a bari da ngay indi ay firnde def sa jàppoo donc def sa ay euh, projection loolu ak say say dossiers yoo xam ne da nga am par exemple say firnde loolu mënuñu wax di ko di ko rafetlu maintenant pour le forum civil bilan bi mu ciy tiire dëggantaan mënu ko mu ko wax fii parce que comme damaa seq ak samay nawle bu ñu retiré woo donc dañuy def bilan séance bi ak li ñu fa dégg lépp enregistré nañ ko jël ko donc bu ko defee ci lañ ma ci lañ mën a wax de manière donc objective donc liñ sentir donc ci mais à priori nous sommes satisfaits